Baye Mandione Junior moo jàkkaarloo ñun Baye Mandione Junior face à kii face à Boy Diakhaw combat bi dem na Boy Diakhaw Baye Mandione Senior huitième combat de la soirée mi ngi noonu ci biir géew bi waaw waw waaw waaw Baye Mandione Senior moo jàkkaarloo ñun Boy Diakhaw moo ñëwoon ginnaaw Boy Diakhaw moo jóge Thiès Safi bu Thiès moo ko indi Safi Dieng bu Thiès moo ko indi moom Boy Diakhaw dugal na ko génnaat Baye Mandione attention ki ngay xeexal dafa a xeex Boy Diakhaw dafa yàlla day jàpp gars yi door ñuy daanu dernier combat bi mu fi bëree sotti bu safi door mu daanu attention Boy Diakhaw Baye Mandione rofoon nañu rofoon nañu attention mi ngi koy tël attention Baye Mandione senior Baye Mandione senior Boy Diakhaw attention waaw waaw ñu ngi bëree Baye Mandione senior Baye Mandione senior face à Huitième combat ba la soirée. Huitième combat de la soirée aujourd'hui, samedi 11 février 2023. Nous à le promoteur Hassan Ndiaye à la tête de la structure. Ball production organisée. Waouh, waouh. Baye Mandione Junior mi ngi sarté attention. Moytul Baye Mandione. Boy Jaxaw dafa mën a bëree. Moytul moom gauche bi. Jaxaw bu Thiès. face à Baye Mandione Junior bu Thiaroye Géej. Baye Mandione Senior Boy Diakhao Baye Mandione Senior face à Boy Diakhao Baye Mandione Senior face à Boy Diakhao ma Mandione si face à Boy Diakhao attention plaquage ba jëm na ko plaqué waaye demul Baye Mandione Junior Boy Diakhao huitième combat la soirée aujourd'hui samedi février 2023 mesdames on est à l'arène nationale le promoteur Assane Ndiaye la tête de la structure Power Production est passé par là un combat qui oppose deux jeunes très forts physiquement mais aussi très doués du côté de la bagarre attention Boy Diakhaw est réputé comme étant un puncher, c'est un bagarreur. Lors de sa dernière sortie, c'était ici, à l'arène nationale, il avait mis KO Georges Bouss de l'écurie Ngoundiane, pour moi. Il avait infligé un coup. Attention, Boy Diakhaw. Baye Signor revient d'une défaite, c'était le 9 janvier 2022, c'était face à qui Face à Ndiaïtin, c'était au stadium Ibamar Diop. Aujourd'hui, il vient pour se raster Boy Diakhaw. qui des deux lutteurs parviendra à tromper la vigilance, à, à, à tromper la vigilance de son adversaire finira par tromper la vigilance de son adversaire Baymanion Junior face à Boy Diakhaou Monsieur l'arbitre, Monsieur Dramé est en train de les inciter à concentrer plus d'efforts.